Marichou mu nekk euh, série boo xamante ne lëmbe na àdduna Bijou donc ñu recevoir leen euh, fii ci euh, plateau yeewu leen ñu wax ñu ci seen production bi ak seen ñëw bi ñu ko andi ci télévision Futurs Médias <laughs> voilà Alfie la dernière fois maa ngi koy annoncé ci biir people yi ñuy def ci yeewu leen di leen wax que Pod et la dafay ñëw sur la télévision Futurs Médias ñu am sur le plateau Momo Edou nekk ay acteur ak aussi Pod moom nag acteur la en même temps mu nekk directeur artistique kan Pod. ah Pod xame naa ko. <laughs> ah yow Pod xame naa la. ah bon eh? waaw xame naa ko. il est venu faire quoi chez toi. ñëw na fa def reportage bu am solo. waaw reportage ngeen doon def. reportage bu am solo. waay. Hmm. ah yow yow yow yow Pod yow na ko jekk ni yow bañ déggee Pod et Marichou sax xamoon na ni yow la ah. <laughs> muy série bi nga xam ne Bijou dañ ko doon xaar. mi ngi buzz actuellement mi ngi buzz de. donc ce que j'aimerais savoir déjà bonjour bienvenue ci plateau Yeewu Leen bi c'est avec plaisir que ñu recevoir leen fi Euh, série bi kañ la nar a ñëw biir télévision Futur Média ak surtout saison 2 bi lan ngeen di waajal na ci ndax première saison bi les gens ont bien bien bien aimé. Euh, euh, plateau bi nuyu aussi tous les téléspectateurs de de Yeewu Leen bo voilà série bi euh, bon comme nañ xamee def nañ saison 1 boo xamante ne pare nañ ko c'est vrai que sénégalais yi wan nañ ñu nekk bëgg nañ ko donc ñuy euh, préparer saison 2 incha allah c' est prévu en avril. Mhm. donc euh, dañoo war a juste valider euh, date bi exactement. début avril fin avril parce que je je sais que ñi koy xaar bëri am na ñu bëri dañuy laaj kañ lay ñëwaat et tout ça euh, mhm. pour xam à peu près ban période début bi fin bi. pour que ñu xam lan la ñu war voilà donc su su yéexee ba yéex mun naa ni mi avril. waaw entre bon suñu producteur moo war a valider loolu rek ak. pense ak Bouba mais je pense que ay détails yu kase moo détails yu ndaw moo des pour ñu valider date bi exactement mais ce qui est sûr mooy mardi lay daw ak euh, ak samedi. sur la TFM. d'accord yow double casquette nga am ci biir série bi euh, yaa ngi nekk acteur nekk euh, directeur artistique est-ce que ñu ci bëri noonu la ñuy liggéeyee loolu moo indi benn. xaw ma cohésion wala am na benn affaire boo ciy sentir daal ci biir benn complicité benn fa daal ñëpp dañ ciy def ci biir voilà euh, voilà donc man euh, c'est vrai que dama nekk directeur artistique mhm. en même temps tamit euh, ma nekk acteur mais aussi en même temps tamit sax ma nekk euh, euh, bon directeur adjoint Marodi donc euh, donc en fait casquette yu bëri la mhm. et pour dire même am na benn instant boo xamante ne saison 1 bi benn moment dañ ma génne ci scénario bi en fait dootuma sax participer pour ma xaw a jël recul. Mhm. c' était bien mais c' vrai que liggéey bu metti la moo tax c' est pour cela j'ai l'habitude de le dire et je le dis souvent nee naa peut-être après Pod et Marichou je ne pense pas que ma joué waat beneen beneen beneen série bon parce que je me sens plus euh, ci casquette directeur artistique derrière donc euh, peut-être maa ngi def série bi nit ñi ñi ngi aimé sama rôle mais je me sens mieux quand je ci biir liggéey bi en fait voilà mais Pod euh, saison bii nii lan la ñuy xaar parce que gis nañu saison bi moom macha allah daal na nit ñi ne nañu xam nga mais saison bi lan nga lan ngeen di indi lu bees loo xam ne leer na ne dina téye téléspectateur ci télé bi. Mhm. Mhm. voilà effectivement donc soo gisee euh, saison 1 bi fu mu jeexee. donc euh, dañu bàyyi ay suspense yu bëri par exemple parce que soo xoolee Pod et Marichou dafa bëri ay histoire am na sama histoire man ak sama ñaari jabar yi soo xoolee fi ñu ko coupé mooy fi ma takkee ñaareel bi mhm. foofu na après ñu jàpp <laughs> donc du coup sénégalais yi certainement ñi ngi xaar Marichou ak Eva mhm. suñu naree wujje mhm. donc je pense que si yenn duel yi ñu def si yenn vidéo extrait yu ñu def saison 2 wane nañ ne ñoom ñaar dinañ nar a wujje ci biir kër gi donc loolu je pense que façon wujje bu dinañu wane daal benn facette wujje mhm. boo xamante ne dina dina xaw a doy waar voilà ci biir voilà <laughs> donc euh, même ci yeneen histoire yi aussi ku ci mel ni Edu bon mhm. moom boo peeram daf ko daf ko euh, daf ko liggéey juste parce que dafa bëggoon génnee génne feebar bi nekkoon ci doomam. Mm-hmm. donc euh, instant yi ñëpp ñu ngi wax la moo tax liggéey bi këppuwul ci moom. Mm-hmm. bon on verra ci saison 2 bi Idou <laughs> naka la nar a naka la continuer aussi yaa a histoire ru Momo. Mm-hmm. tamit nga xamante ni début dafa nekkoon bandi. après mu commencé ñëwaat société bi léegi moment bii nii man euh, au début dinañ xam ne maa ngi prison. donc est-ce que Momo dina am suffisamment de grandeur pour gérer li ma doon gérer pour représenter ma pour am pour am pour porter casquette boobu noonu donc am na je pense qu'il y beaucoup de choses yoo xamante ñu ngi koy préparé Sénégalais yi mais aussi dañu pare saison 1 mu amoon yenn amélioration yu ñu war a def. Mhm. ñu def suñu bilan et je pense que pour évolution boobu noonu du ñu soxla. je pense que TFM assuré nañu ko. Mhm. donc loolu sax moo gën a yokk ñu ñëw fii. xam naa am nañu bande annonce bi ñu seetaan fu ñu waat comme ça ñu bàyyi euh, Momo ak euh, Edu euh, ñamal ñu tuuti ci seen histoire ci biir série saf na ak kon dañoo bëggante ñu fi nekk bëggante rek te nekk ñu ñoo fi bari sérieusement Maty j'abandonne wax yi abandonné moom bu ko fi sax wax ko te lee ko defar mi ngoog yéen ko gisandoo mu nekk Pod et Marichou ñëw fii nga xam ne mooy télévision Futur Média xam ngeen ne yu neex yi fii lay xewee ba tax na deuxième saison bi xaar leen ko comme ni mu mel ak première première euh, saison bi muy jàll mardi ak euh, samedi laataa ñuy jeexal ak ñoom Aminata am na benn question bu mu leen bëgg poser laataa ñuy bàyyi euh, parole bi ak sunu gaa yële. bon man lu ma leen di laaj mooy seen casting bi comment ça s'est passé parce que à un moment donné on sent des gens yoo xam ne dañ ko jàng da ngeen def casting normal ou bien da ngeen dem ci ci feeling vous avez suivi votre instinct. voilà bon euh, pour casting bi c'est vrai que loolu moo doon suñu challenge bu gën a mag. dañu waroon assurer uh-huh. ah relever le défi c'est-à-dire imposer. <laughs> <laughs> Mm-hmm. waaw heureusement que Amina moom waaw mais li si important. mais Ndiaye da koo naroon posé. kasi boobu fan ngeen jëlee xale jigéen yu rafet. ci série bi waaw xale yi jigéen yi. avec xale yu góor yi ñu ngi koy laaj man de pon moom ak Marichou du jàll sama kër. ah <laughs> ndax damay bañ. Ricardo Ricardo Ricardo waaw wala bu génnee laa koy seetaan donc nga léegi internet bi lu pare rek day dem ci ci ci net bi fa laa koy lii pour mu bañ a gis xale yi pour bañ a gis xale yi non xale yi ñu ngi fii Dakar c'est-à-dire même soo xoolee euh, yenn personnage yi ñuy yi yi ñu am ci bi film bi suñ par rapport ak casting bi dañuy ut ñoo xamante ne carrément seen personnage day colle ak personnalité bi. donc du coup pour que mu gën a naturel. si biir jeu bi. Hmm. voilà donc euh, ci xale jigéen ñu rafet yi fii lañ nekk si biir Dakar te loolu tamit dañu ko bëgg a wane. Ah, xam ne fii Sénégal dafa mel ni ñu xees ñi ngeen gën a ngeen gën a kii ah, ah, yéen dafa mel ni jigéen ñu xees ñi jigéen ñu xees ñi ngeen gën a kii. waaw mais tànn am ñu couleur ébène ah caramel chocolat ñi ngi fi mais ngeen jël ñu xees ñi tamit rek. non non tànn bu la neex la. Ah. ñëpp a ngi ci biir mais ñoomee Edu ñoom du ñu wax. waaw léeg leen jox sax ñoo xale jigéen luñ seq ci biir série bi da ngeen di jouer rek ñibbi wala de temps en temps ngeen. da ngeen tournage yi. bu ree <laughs> pët. dañuy laaj moom miin na yëfi tournage moom. maanaam nee bu ngeen di tourné xam bu ngeen tourné ba pare da di tourné dem rek wala est-ce biir am na ñuy génn entre yéen souvent dans les séries même au niveau de l'international ngeen gis ay personnages yoo xam ne ils jouent ensemble dans une série et finalement ils commencent à sortir ensemble est-ce le cas chez vous wala est-ce que yéen ay mag ak rakk rek ngeen da ngeen di jouer ku ne dem wala ay collègues rek ngeen li ngeen di wax nag ñun rek ñoo koy yëg non mhm. mhm. bi mënuma ma tontu ñëpp très franchement mais damay tontu pour sama bopp. yow sa bopp nga assuré voilà man micro bi micro bi très franchement. bon micro mais am na ko ma nekkal. donc liggéey bi fallait pour mu rafet. comme ni ko na si waxee léegi pour mu naturel aussi fallait que mu am une certaine complicité. Mhm. moo tax man bi ma xoolee ma xam ne Sala laa war a tourneel te moo nekk suma binôme ci biir série bi dama ko jël def ko comme une mm-hmm. donc mais mais Edou mm-hmm. pour pour euh, rejoindre question bijou bi est bi nga am ci xale que damay dugg ci ci site euh, ci ñu topp mm-hmm. mais qu'est-ce qui se passe yow que man ah, affaire daf ma jaaxal tout le man maa ngi xool ndax yow la wala du yow ah, ndax da nga timide et tout mais ah, oui il est doo yëngu xëcc eh, ay naturel rek gisoo Idu ma ngay téye micro bi xam nga ah, en tout cas il est timide mais xale jigéen ñi daal macha allah nana 10h25 Idu aywa yow tontul ci li nana laaj nga mel ni ku déggul question bi bu baax dégg naa ko dama koy waaw aywa tontu ko da nga gaaw jox sama waajal ma ko doon début sànq ah. maa ngi dégg Oustaz sànq mi ngi wax ne yàlla moo njëkk bëgg lu baax moo njëkk bëgg moo tax nga bëgg lu baax man xëy jigéen ñëpp bëgg lu baax eh, <laughs> jigéen ñi bëgg lu baax dégg leen dégg leen foofu la de sooy Momo Momo ça va salaamaaleykum moom daa yaru salaam Momo moom ku yaru lay yow moom wute ak Edu waaw gis nga dama yaru mhm. waaw donc dañ lay bàyyi nga ci série bi avant ñuy jox euh, Pod mu wax ñu joxe rendez-vous ak téléspectateurs yi wax leen aussi lan moo leen di xaar. ok pas bon euh, pour li ñuy xaar moom pour li xaar téléspectateurs yi si saison 2 bi moom je pense que Pod xaw na si cabaxal tuuti. Mhm. Mhm. li si des moom jëf la parce qu'en anglais on dit action speak louder than words. dëgg la les actes par plus que les paroles les actes parlent plus que les paroles. Mhm. donc nañ seetaan rek avril soreetul incha allah. ñëw na ba pare waaw. nañ seetaan rek. nañ seetaan nañ xam ne que beneen level la c'est une confirmation incha allah. bëgg naa tontu ci benn affaire. man damay tourner rek dem. na ma teew ak kenn. <laughs> léegi yow yow man moom xam nga. man dinaa leen ah, eh, moom moom eh, fa lépp di leeree. bijou foofu moom moom sañul sañul wax dara ba bu waxee ma boole ko. oh non amul problème. man dama koy wax ma lay man sama ñaari jabar yi dama leen nopp dëggantaan. Ah, waaw man dama naka nga mën a noppandee ñoom ñaar ñëpp. Ah, waaw même degré. am na kenn ku ma si gën a nopp 1 pour cent cest à kenn ki 51 kenn ki 40. 40 bi foofu la nee kenn ki da ko jógee mais keneen ki a xëcc benn pour cent bi ci des. en tout merci beaucoup d'être passé sur ah, plateau pour waxtaanee série bi nga xamante ne waa Sénégal yëpp ñu ngi koy seetaan et que dina ñëw au mois d'avril saison 2 sur la télévision Futur Média xaar leen les mardis et les samedis.